Abdoulaye Wade mhm. te Abdoulaye Wade wóor nañu ne ñun ñi fi mosa nekk président ñëpp ñi ko jiitu moo leen gën fuuf ci démocratie moo leen ëpp jom ëpp leen fit ëpp leen fula ci man mhm. ba ci ki ko wutu parce que tey moom danga daan wax naan bu dee gaynde ci bitti la doone gaynde su ñëwee Sénégal doon maami ñëpp doon xar mais kii lan lañ gis le contraire mhm. bu nekkee ci réew mi gaynde la kenn du xool nangam na d'ailleurs loolu lay bàkkee boppam sax bu génnee nag lan la ñuy gis. Mm-hmm. koo xam ne wax layaam layaam yi fii en tout cas fermeté bi muy àndal bu jëmee ci opposition wala nangam nangam du kii koo xam ne yow sa bopp rek nga xool sa intérêt rek nga xool li ñuy woote dialogue li nga tegoon yëpp ci dialogue bi mooy li nga bëggoon a def yëpp def nga ko nee nga loolu kenn du ci duñ ci duñ ci xool chef de parti nga ne non duñ ko xool. bulletin unique mm-hmm. nga ne non Sénégal foo xam ne yow nit ñaa ngi mémoriser alxuraan di ko bind te duñ ko xool. nit ñi ay maire yu màggat ñi ngi fii di lijjanti seen kii ci téléphone nga ne bulletin unique duñ ko kii parce que nangam ak nangam. Mm-hmm. xam nga ñuy wax la waxi troisième man da ngaa danaa ci wax di di bëtalaat di yóbbulaat nit ñi maanaam dafa dem ba <laughs> xam nga nit ñi dañoo yaakaaroon ne nit day naax ak yooyu mais li Wade doon wax rek. le mm-hmm. pouvoir ab rend fou mais le pouvoir absolu rend mm-hmm. absolument fou. Macky Sall dañu dafa jot ñu dimbale ko ci boppam. parce que man dama jàpp ne danger la ci boppam li tax mu nekk danger ci boppam mooy ëllëg su bàyyee jógee ci Sénégal sept mhm. ans après nit ñëw mhm. comme li daloon Abdou Diouf Abdou Diouf solitude bi muy doon mujj di dundi xat ci mhm. Sénégal bu ñëwee loolu parce que ki ko wuutu day dafa def mieux que moom doonte ne la nit sax dafa war a ñaan loolu parce que Abdou Diouf nag loo ko mën a waxal bi fi Senghor nekkee Abdou Diouf ak ëpp démocratie am na lu mu yokk ci démocratie Wade moom ñëw dolli démocratie ba ba mu agsi benn stade mel ni daal Senghor démocratie Sénégal Senghor daf ko fekk néa indi ko 10 mhm. wala mu fekk ko 3 boog indi ko 10 Abdou Diouf ñoom moom indi ko 15 mais da ñëw jëlee ko ci 15 yi indi ko 60 mhm. mais Macky Sall bi mu toogee lan la ñu gis démocratie Sénégal daf ñu jëlewaat 60 indiwaat ñu 15 euh, mhm. kon man li ma gëm mooy tey boo doon comparé ay Macky Sall ak yeneen dëkk yi nga xam mosuñu xam démocratie man dama naan Yaya Jammeh moo mooy ëpp Macky Sall démocratie parce que mujj na am na sax lu mu commencé woon a nangu mm-hmm. ci biir réew mais yow xam da ngaa fekk ci réew démocratie redire ñu ba ñu delluwaat 30 euh, ans en arrière mm-hmm. mais loolu baaxul ak loo mën a jox nit ñi xaalis ak yu demee noonu bul fàtte ne Kadhafi mm-hmm. doon na jox libyens yi ba duñ fay courant ndàngam nag lan la ñu mujjoon di jooy yi bañ jóg mu di wàcc nit ñi ak loo leen mën a jox te joxoo leen lu libre amul sens yow mii buñ la jëloon soxna tey hmm. milliardaire jël la soxla dëkkal la ci sato di la defal lépp te boo bëggee dem euh, sa kër yaay doo dem hmm. soo bëggee dem marché doo dem léegi nga fipp <laughs> waxati ko ah, <laughs> euh, nga fipp euh, saa ñu wax ci li nga xam ne gis nañ ko ni ki démb démb li nga xam ne moom mooy dialogue bi daal di jeex Euh, kii di président Macky Sall daal di yëkkati fa ay euh, kàddu mi ngi sax xam ne ne euh, mbiru troisième mandat du léegi lañ koy wax ndaxte am na yeneen priorité yu jiitu mais nag bu jotee rek moom dina daal di yëkkati ay kàddoom wax ak sénégalais yi wax na aussi tamit ci li nga xam ne rek gisoon nañ ne xew na fi. Euh, ci euh, premier 2 euh, at 3 juin waaye itam dafa am lenn loo xam ne gis nañ ko sénégalais yëpp gis ko ba sax ñu ngi doon ko dugalaat ci réseau sociaux yi muy këne ki nga xam ne moom moo loon ko moo loon ko tagg muy Ahmed xalifa Niass ñu gis ko ni ki démb bi mbir mi jeexee muy nuyu mais da ko daal di romb nuyuwu ko sax ba ñu bëri naan luppee euh, comme ni ko ni ko ni ko sénégalais yëpp di waxee donc loolu doon loo xam ne jaaxal na askan wi waaye itam jaaxal na képp ku ne ça. waaw loolu mooy nit. boo mhm. amul boo ñàkkee jom. <laughs> moo lay faral di dal baadoola du jub du jub mhm. gàcce te yeggu ci te baadoola bu doonee baadoola. Mhm. soo ko seexalee mu dib sëriñ du teemu yi baadoola <laughs> baadoola bu doonee baadoola boo ko tegee mu jiite nekk président yi du tee mu baadoola jëfi baadoola lay def. Mhm. loolu mooy li nga xam ne moo ci am. xam nga euh, su may wax loolu nag moom ci ñëpp laa ko yemale muy yow mi yëg man mi yëg ñëpp parce que doomu aadama. Mhm. dafa am loo xam ne yow la. dañu wax ne loo may say bañ mosal say soppe ndax jikkoo mel. Mhm. man tey boo ma dalaloon sa jataay bi may wax di saaga. saaga yi may saaga ki may saaga daf maa def ma di ko saaga mais moromam ma toog ci kër gi. Mhm. maa ngi koy saaga saagawaale. wala ki nga xam ne mi ngi ma doon dégg di ma bége mi ngi dégg may saaga te waruma woon a dégg may saaga. Mhm. kon Ahmed xalifa Niass bu nee gëmmu dóor gëmmu nangam moo mag Sall gëm na gëmm na romb ko. Mhm. moo tax waaye di baaxut te gis nga mag yi day suul ndaanaan maanaam benn jamono. dama naan yàlla lu def noonu la boo gisee nattu. su ndaanaan de baaxul. Ah, nattu sax bu amee yenn saa yi. Mm-hmm. da ngay gis ne am na lu ndax di nga ci jéggi ba ëllëg nga mën a xam nooy def maanaam dangay ngay tey am lu wolof wax muy buur du mbokk. Mm-hmm. gis nga xaw ma luñ jote nag parce que mën naa nekk leneen ak leneen yu nekk ci biir comme moom dafa tëradi. Mm-hmm. tey du ko fidèle moom ma am Ameth wax. parce tey. xam nga nit nit ñi dañuy xool démb bi nit ñi xam nga bu ñu demee ba Ablaye ñu jàpp ko ci ay événement naar yi ñu bëggoon ko cee jàpp ba di ko ci enquête nit saña taxaw. Mm-hmm. wane ne moo la def loo woon nangam wala yaa jële nangam ak nangam. Mm-hmm. loolu leneen la kooku fidelul en ci te loolu Macky Sall da koy xam nga ñëw ba 2000 Abdou Diouf. nga contrôle Abdou Diouf ànd ak opposition bi boo waxee sax mu ne Abdoulaye Wade parteem bi ñu koy sant sant ci man maa taxawal sinjali bu doon jigéen man lañ koy tuddee yooyu teewul bi ñu ba 2000 daa jékki-jékki ne dafa allergie Abdoulaye Wade mm-hmm. ah Abdoulaye xam nga moom day gor day ndaanaan euh, Yërim Fara Wade mu ñëw jongoro si Abdoulaye dugg ko mm-hmm. yegg si nit ñi ne ko yow yaa ne woon Abdoulaye Wade city la di mu ne ko city de dañ allergie waaw yaa ne am laa da koo allergie mu ne allergie am na garab xam nga kooku tey moom bu ñuy wax baadoo dëgg dëgg dëgg sëriñ la mais baadoo la mhm. maanaam parce que sëriñ da ngay sëriñe sëriñ dafa am sëriñ xam nga mooy lan moomu sëriñ boo ngi ko waaye sëriñ ñu ngi koy bindee sa maanaam sa xam nga sa moo xol ñoo xaw a niroo xol mhm. ginaar day xol ci wujam nit nag day sa xam-xam boobu noonu koy joxe nit. Mm-hmm. da nga koy sa nit ki mu mën koo jàng maanaam joxe boobu ngay joxe leçon moom la wolof di wax sa. ok maanaam sa boobu nag lay wax ne sëriñ maanaam mooy ki lay sa njariñ. Mm-hmm. Ahmed Khalifa Niass ñaata yoon lay jariñ Sénégal moom de gis naa moom bu tànt bu rafet mayoon ko pencam baayam male Medina Baye. Mm-hmm. xëy nanguñu ko kooku est-ce que sëriñ la est-ce que kuy saate njariñ la. xam nga yu bari parce que démb dafa dafa du kër kërub dëkkuwaay waaye kërub delluwaay la moo tax bu ñu fa delloo rek du la jaaxal man mm. koo Macky Sall japin noonu ak mais Macky Sall nag mënoon na xam nga euh, li ñuy gis ak lu mu mënoon a xaw ma la xaw ma mm-hmm. mën naa sax fàtte wala dara mais bu fekkee ne moo ko ci jublu laay ne fàtte nag voilà ki ci njëkk a nuyu waay man kay ah, man kay xam naa mënul nuyu ki ci ginnaaw nag bàyyi ki ci kanam xaj na lim gàtt li muy ak ndaama <laughs> gis ko xam nga daa nuyu ki ci ginnaaw kooku ki ci ginnaaw gën a gàtt ki ci kanam daal ko Ablaye Ablaye Makhtar xam nga Ablaye Makhtar nag dafa <laughs> góor yi moo taxit waaye waaye Ahmed lu mu gàtt gàtt it am na mm-hmm. ñelañ parce que mënoo ko gis parce que li muy sol day fés ba noppi suñu ak xeesaay bi ak yooyu <laughs> nag warul woon a tax mu jéggi ko mm-hmm. kenn mënu ko pour man daal xam nga loolu sax mooy wane ne ñàkk a mat bi suñu njiitu réew ñàkk a mat njiit njiit am na nooy meree nit ki mm-hmm. wala looy jàppal nit ki wala nangam boo matee ji dëgg dëgg dëgg rawatina sa chef de protocole lu muy jariñ ak yooyu. yaa des choses yoo xam ne nit ñi waruñ ko gis. ba naan da koo peeral. xam nga daloon na fi daloon daloon na fi Idrissa Seck. ci 4 avril bi. moom laay wax gis nga li muy métti métti ci Ahmed Khalifa Niass. moom mi mhm. ko def di njiitu réew loolu day wane ne moom day jiitu réew mi rek selon ses bang bang ku mel noonu nag da ngay teey mhm. bañ a waye di ci kanamam comme Ahmed waye dina ci kanamam. suñ borom loolu lay kii yaa ngi doon taxaw naan ko gëmmal dóor naa mu gëmmal teg foofu gëmmal door gi euh, sëñ sëriñ sëñ Mansour si Jamil doon wax mhm. Ahmed moo yàqi waxam sëñ Mansour si parce que ñaar yi duñ benn benn non sëñ mhm. Mansour si ni mu indee aaya boobu wasaaruhum fir amri boobu muy wax euh, del diisoo ak ñoom ci mbir yi mhm. te soo su ngeen dee ba kii nga daal di wéeru ci yàlla loolu su ko indee bay wax ne sama benn euh, cousin daf ko tekkee mooy gëmmu dóor mhm. loolu mooy li nga xam ne moom la Abdou Diouf defoon ca euh, kii bi nu mu tuddati kii wu Kéba Mbaye boobu processus électoral bi ñu doon def mhm. ak yooyu ba waxtaana ci ak yooyu te Abdou Diouf ne ne je ne changerai virgule boobu loolu gëmmu dóor boobu la ci jublu woon mhm. mais nag dafa am li ñuy wax xamadi baatu xamadi nag suñ koy wax du reewale mooy ku ñàkk xam te war a xam war a xam xam nga benn ndar ndar bu mel ni sëñ Mansour Sy Djamil su umpalee wolof mën nañ ko taxé ku xamadi. Mhm. du c'est pas péjoratif nag li may wax parce que damay fii ma nag moo fi toogee damay jàngale waale moo tax. xam nga mooy dafa xamadi mooy xamut parce que foofu baat boobu. Mhm. baatu dóor surtout situation réew mi fi mu toll ñuy dund ci dialogue ak yu demee noonu boo fa jëfandikoo baatu dóor. waroo mhm. kon ñàkk a xam xamadi mooy tax nga mën ko ko kon boo ne woon sax gëmm góox sax. xam nga góox sax du approprié wul foofu mais boo ne woon gëmm góox. xel yi du ñaaw ci loolu mooy naanal maanaam gëmmu guux garab du neex mhm. maanaam du neex ci yow waaye gëmmu jëfe rek mënoon naa nekk foofu waaye waaye jëfeel nangam léegi nag boo nee dóor Ahmed Khalifa Niass ñëw fekk jàmm maanaam nekk fi mhm. ñu ñu ne benn taal taal bi daal ñu ngi koy taal war cee ataaya xam nga loolu jàmm la war a war cee togg añ jékki-jékki rek benn giliñ kii rek taalaale benn saako bi nekkoon ci wetu taal bi muy mhm. jàpp mais boo ñëwee jël saako bi bi bi jàpp nga sotti ci essence <laughs> mais yaa yaa ko yokk taal bi <laughs> loolu moo <laughs> moo moo doon nekk mais far mbir mi ci moom ñu luppeeku mm-hmm. loolu la moo tax mbir mi moom àdduna dara jarul voilà àdduna dara jaru ko voilà euh, am ñoo xam ne nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñenn ci patriotes yi ñoom nee nañ rendez-vous 14h30 fi nga xam ne rek moom mooy devant la porte de l'UCAD pour dem fi nga xam ne moom mooy cité kër góor gi donc point de rencontre yi bëri na comme ni ko Sagna waxee tout à l'heure que ne way takk der yi nag daal dinañu renforcer li nga xam ne rek moom mooy dispositif yi ngir rek euh, li nga xam ne euh, Yewwi Askan Wi daal dina ko woote ngir ñu daal di koy euh, dakkaal waaye nag sénégalais yi jàpp nañu ne ñoom dañoo war a dem rek di sauver ki nga xam ne moom mooy leaderu Pastef boobu di Ousmane Sonko sa mu mel ni nag euh, instant yi nii mën nañ ne sax 14 euh, heures euh, jot na. Mm. presque te dañoo war a daal di dem rek fi nga xam ne moom mooy cité kër góor gi daal di joxe li nga xam ne moom moo xew foofu situation boobu ban message ngay lancé. à la population sénégalaise di nuyu ñëpp rek. Mm-hmm. ku mel ni xam man du may tàggoo. mais ku mel ni Talla Niang maa ngi ko dégg mu ne saa wolof tey moom si pas d'accord Talla <laughs> ànduma ak yow waaye. ànd naa ci ñàkk ànd nga ñàkk ànd ak man. Mhm. <laughs> man suis libéral <laughs> moo tax. su ñàkk ne libre. Mhm. faw nit ñi di wuute ay xalaat ci mbir mi man li ma gëm mooy sénégalais yi Apple sax nekk kër Ousmane Sonko pour bañ li ñuy bañ. ñuy bañ man mi nekk ci buntu këram na génn taxaw. Mhm. Euh, ba nit ñëpp xam ne sénégalais yi génn nañ bañ nañ lii parce que man dama jàpp ne bu lim bi baree rek. kenn du taal grenade lacrymogène mhm. bay tiire balle réelle wala ay nervi di ñu rax parce que danañu xam te lii nag xeexu noble la maanaam mhm. dañuy xeex pour liberté am xeexaloo ko Ousmane Sonko wala keneen dañu teg ci réew mi lu dul yoon loo xam ne mënoo ko layal fi nga mhm. xamee ne mënoo ko layal mooy bu demee ci plateau international te problème bi mooy ngalaaboon nañ presse bi ba yéen presse en ligne képp yéen a ciy wax yenn presse yi lan la ñuy teg ay jéeg ak këram <laughs> tey tabaski gi kenn santiiru ko tey Sénégal gis nga problème bi ñu am mooy problème mu justice boo ko réglé wut. Mhm. fu nit toogatee justice la fay wax nit dana dem tey ba ca Kaaba ga yaa ngi dégg ay ay ay nit yuy aji. li ñuy njëkk a wax mooy. dañuy wax carrément yàlla nangamal Macky Sall wala nangam ak nangam yooyu. foo mhm. demee tey gis nga xoolal màggal Tuubaa su amatee. loolu mooy li ñuy wax ci tànk yi moom la ñuy wax te alors que nekk di sant sëñ bi moo waroon wala nangam nangam. mooy li ma wax sànq rek. Mhm. ci wér yaram su soxla dee ñaar rek daa fekk wér-gu-yaram bokk ci mais wér-gu-yaram moom bu dee du ñaareel soxla mukk mhm. bu xasee posé wu rek problème mu wér-gu-yaram bu posé wu ñàkk wér mooy benn soxla lu nit ki am mooy nu muy lijjantee bu wér justice tamit noonu la mel cim réew su justice lijjanti ko diine ji danaan ñoŋ rafet euh, lekk gi day baax mhm. parce que injustice weesuwut nga dem euh, signer OGM ak yu demee noonu loolu du injustice injustice weesuwut suñu baykat yi bay ba noppi mhm. war a mën a jaay seen